Ousmane Diop ci nappa daal laa juddoo because suma papa ñoomin kala ci laa ko fekka suma imam sa ci laa ko fekka daanaka ci laa juddoo moom laa def métier napp bu njëkk ba jën dafa bari woon waaye léegi mun naa wax ne dara amul by this time daf doon fekk ngay am ay hundred kilo waaye this year bi nawet commencé ba léegi pour nga am ten kilo sa problème la loolu mooy wane ne ceeñ bu bari moo ci nekk. Ousseynou Gningue waa nappakat la maa ngi juddoo 56 50 street suñ géej gi dafa ndaw liñ indi si trawler daf ñu ëpp doole te ñun Gambia amuñ dara lu géej ak mbéy wala sàng amuñ essence amuñ diamond amuñ dara ñaari lañ am mbéy géej gi waaye géej gi ñu ngi ko ñu ngi koo yaaxa te waruñ koo yaaxa Edward Sambu, man suma liggéey moy dem na passé passé siba ñun jafe-jafe bu reuy lañu am fi moy léna dal moy factory dañu am factory bo xamné né dañu supply sin sipa bi comme bu ñëka MP naka la meloon fi ak fisheries légui pelican dega dega suñu jëlé sipa yi yene duñ ko dee mëna jéxal ñu joko bana baana ñun itam bu reuy la Eh, suñ ko joxee bana bana léegi léegi ñu ne la glace bi eh, dafa yaa si bi te doo ci mun dara. xam naa ne gaal yi bari yi nekk ci géej gi gaal yi Chinese yeeg daanaka yooyu yëpp xamuñ koon fii waaye léegi daanaka géej gi yëpp eh, gaal yi Chinese la waaw ñuy mbaalee nu leen ne di liggéeyee nu leen ne bi bi fi nekkul daaw time bi dafa doon fekk ay eighty kilos kilo waaye leen bi nawet commencé ba léegi ten kilos sax pour nga am ko problème la. boo seetee gaal yi ñu nii. dañoo mbaal ba si biti biir bolong yi sax am na yoo xam ne dañ ko gis ñuy mbaal foofu te loolu correctul am nañ fi ay gan yoo xam ne ne ñu ngi fi waaye lu ñoo nappee ci géej bi itam dafa naari trop ici sipa bi am ci paas am na ci digi canal waaye ah digi ñi na nappa digi kanal bi nañu dem ci digi kanal bi waaye bu ñu nappa ci paas bi ñun loolu mooy suñ jafe-jafe fii dañoo nappa ba si paas bi fu nga xam ne ne sipa bi foofu la day juree si xam nga lu nga xam ne ne dafa jur ci paas nga dem napako foofu yéen xam naa loolu itam du mun a baaxee noonu. am na jën yoo xamante ne dañ ko fi daan am léegi mënatuloo ko fee gis like nguña mënatuloo koo gis ah kobo bu baax bi sax doo ko amati yu sew ngaa am kobo yu sew sew. te ñoom sax fi leen wax ne foofu la ñu war a mbaal duñ fa dee baale dañuy ñëw ba fi ñu war a mbaale waaw fi fi eh, jën yi war a juree wala festival bi ko fi war a jure boo ñëwee mbaal fa mbaal yi war waroon yi waroon a jur daanaka eh, eh, dara doo am. Eh, amuñ ice plan da ngay indi sa jën doo am foo ko dugal doo am galaas boo ci def da ngay mujjee loué taxi dem ba marché pour odi galaas loolu yëpp ci jafe-jafe la da ngay dem ci fa yeneen factures sax ñu ne du ñu jënd wala ñu jëndee ko price boo xam daanaka du la feebo waaw yuy jar hundred dalasi boo koy ubbee ci facture bi ñu jëndee ko fifty wala forty dalasi. gis ngeen gaal yi naka lañu mel fi amuñu fu amuñu fuñu def bagage loolu tam ma ñu ñaan ñaax nguur gi pour ñu dimbalé ñu ñu mëna a am fuñu tek suñu bagage yi ak suñu conteneur yi. gi nga li nga gis ni ñun ñoko doon seka jóoroon nañ fi suuf bu bari pour mu gëna dem Samba fa ex maire woon mo ñew nangu suuf yo yobu ko la soir moom lañ bilé la on la san mu ne santu ñu pour ñu dibalo fi ni té nit fo nekk da nga ko war a ci li ma ak suma gis-gis. gis ngeen wa fi jago daanaka espèce boo liggéey sax amu fi ci kaw tali bi la ñoo liggéey